الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يضل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ولا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سيدنا مبارك maa ngi leen sant bu baax a baax rafetlu ñëw gi nga ñëw fii fi man ak yëgal gi mu yëgal liggéey bii nga fas yéene ubbi ci fin octobre maa ngi ci sant yàlla bu baax a baax te di la ci di la ci di la nawetam naw koo naw nawleeg nawle la ndax dama loo ko jur jur sam nawle rek lay doon gis naa ne tànk yi nga xam ne seen wajuro moom la moom la doon moom la doon doxe di ko waxee gis naa tànk yooyu rek ngeen di doxe di ko waxe loolu nag ci ci sant suñu borom tey ñaan rek mu dëgëral leen dëgëral leen te aar leen sàmm leen ba ngeen àgg fu ngeen bëgg àgg ci ci yoon de ci lislaam ji loolu loolu buñ leen ko ñaanal suñu bopp lañ ko ñaanal suñu doom lañ ko lañ ko ñaan lañ ko ñaanal noonu duñ ci ñëb lu dara incha waaw ngi koy bu baax a baax a baax liggéey bii ngay liggéey itam rek ma sañoon nga ñeme ci bu baax a baax a baax te de ndax ndax ndax yàlla nga koy defaral yàlla nga koy liggéeyal ku liggéeyal suñu borom rek moom la xam ne rawatina ci diina ji ci diine ji ci nga xam ne moom mooy wax ne eh, eh, addina addina lu mu yàgg yàgg yàgg ak lu mu rëy rëy rëy rëy diine diineem ci dong moo ko ci ñor leneen ñoru ko fi eh, kon nag ku ci ku yàlla tawfeexal nga nga nga nga nga nga féet nga féete ko foofu eh, bokk ci ci ci jullit ñi di ko liggéeyal ci ci diineem ji bay war fen jot ba tax xam ne moom moo lay moo lay sàmmal boppam moo lay aaral boppam la nga bëgg moo la ko defal boppam su boobaa kenn du ci mën dara eh, kon nag na ngi sant baax a baax baax te te te rafetlu taxawaay bu baax a baax te ñaan itam rek suñu borom defal leen ci ndam lu kawe barkeb Sëriñ Tuubaa waaw soxna waaw soxna si waaw man ba ba ba lu ma dugg tuddee loolu ma noonu sax ci eh, te defoon na mag moo xam ne mën naa wax ne eh, daara jii bi jaar ci loxoom eh, li mu njëkk li mu njëkk a li mu njëkk a jàng moo ko jàngal xam nga soxna jaar yeggu fi xam nga mm-hmm. ah, rek njaboot gi moo leen moo leen moo leen moo leen téye woon ah, li dem ci moo ko ci def ah, kon nag kon nag ku mat a bàyyi la a ku mat a ku mat a dundal la mm-hmm. lool itam moom yàgg ko nag moom ku ku mat ku mat a bàyyi xel la bu baax a baax nag turi maa ngi mu nuyu borom bu baax a baax a baax te barke barkeel gaag yàgg yàgg yàgg yàgg gaag ak dëggu ga jërëjëf salaamaaleykum wa rahmatulah <laughs>